politique ñetti temps là temps au xeex temps au dialogue et temps au stratégie Ousmane Sonko grève de faim moi la seule chose beaucoup ko mën pour nous génn prison moi tax mu opté ko amul une option pour moi bon pour moi pour moi c'est la seule chose beaucoup ko mën prison s'il veut s'il veut rester euh, en prison il n'a qu'à laisser le la la grève de la faim donc dañ koy fàtte prison tant que yaramam mu ngi nakari, du mën nek prison. président te pour yaramam nakari, il faut mu teg yaramam lu nga xamante da koy naqari lo pour mu mën a génn prison maintenant pour le combat de de de de bokk ci élection yi xam nga kañ la Ousmane Sonko waron lañ ko waroon a ci élec ci ci carte électorale ci sama ci sama gis-gis bu gàtt biñu ko condamné par contumace la radiation est automatique n'est-ce pas cuun wala. non damay def benn damay bañ def erreur parce que yaay juriste bi. Ah, non non non yow yaa ne yow yaa boobu lañ ko waroon def ko amul laajte. mais il faut dire que en état mën na dañ à tout moment boo joxee sa bopp. dañu ah, mën a automatiquement automatiquement ci jamono jooju la Ousmane Sonko génnoon ci li nga xamante ne moom mooy ci parce que pour man automatiquement la la la lay génn ci ci ci ci li nga xamante moom mooy moom mooy élection moom mooy euh, carte électorale maintenant. pour man la seule stratégie bu Ousmane Sonko war a adopté ak ay ñooñam mooy ñu enterrer hache de la guerre bi jéem a xool ban stratégie la ñuy toogee pour waxtaan yàgg naa ko wax amul maanaam xeex bi kenn du ci gañe xeex bi kenn du ci gañe ci waxtaan la ñuy mën a gañee ay euh, Khalifa Ababacar Sall mais luñ ko fi tegul luñ ko fi waxul Ousmane Sonko mii yàgg na koo jàppale que ni dañ koo teg kii dafa war a bokk toujours ay ñooñam dañ daan dem ay dialogue mais bu ñu dialogue bu ñu ba ci biir ñu affaire bi échoué na Khalifa Sall du ñuy ay stratégie ba Khalifa Ababakar Sall euh, Karim il était question de la révision de la révision de son procès donc ñom am nañ gain de cause pour man mbir mi ci waxtaan rek la mëna bon Ousmane Sonko ak état d'esprit ndax dina nangu wala xalé yi ak toujours lool dama xalé yi and ak mom bo ci laajee 10 9 yépp d' ñu Ousmane Sonko euh, euh ak condition yu mëna a nekk. Hmm. d' ñu Ousmane Sonko waxtaan. mais c'est pas risqué comme ni ko Pall di waxee c' pas risqué pour moom nga continuer. non non parce que déjà actuellement il est dans une situation euh, de faiblesse. c' est sûr que Ousmane Sonko sur continue ci lancer wu xeex bi gatsa gatsa. moy hmm. dañ koy enterrer mom ah. dañ koy dañ koy dañ koy reyee ci li nga xamante ne moom mooy la politique sénégalaise. te su boobaa dafay dem ba xam nga sénégal yi dañoo dañuy dem ba dañuy sonn mënuñu dëkk ci xeex tey ci vacances lañ nekk ci jamono jii la jeunesse bi waroon a gën a mën a taxaw sax pour xeex mais c'est-à-dire ndaw ñi dañoo dem ba ñoom dañoo sonn. le combat a été engagé très tôt d'abord. dañu c'est ça ñoom dañu sonn. dañu dem ba dañu sonn même même boo xoolee taal bi nga doon wax ak yooyu noonu stratégie bi ñu doon taalee mooy benn groupe de personnes mooy groupé wu dem benn kii taal fa ay pneu gars yi ñëw ñu daw dispersé wu dem beneen point nga gis ne bi ñu leen canaliser ba.

toog ne man ay Ousmane Sonko bu bokul élection diw bu bokul élection élection do am man nekuma ci yoy Malick Gakou moy sama candidat il va travailler pour son candidat dootu fi nekk di xex di xex pour jëmale euh, ëllëg dafa bëgg candidat am nek président kenen ku nga xamantene ne Khalifa Sall Barthélemy Diaz ak ñeneen ni ñoom ci loolu lañuy xex wa wa wa waa waa Sénégal ci loolu lañuy xex ñeneen ñi nga xamantene ne F24 ka ñeneen nga ñu dégg ñu wax parce que ñoom seen combat troisième mandat la woon troisième mandat Macky Sall dafa désamorcer bombe boobu nak maintenant ñeneen ñi doon xex parce que dañoo yaakaar Macky Sall dafa bëgg écarter Ousmane Sonko pour positionner wu bi Macky Sall ne man dew ay la yéwén dañu naan kat comme Macky Sall bokul xexu Ousmane Sonko mo ci dess amna ñu nga xamanteni xexu Ousmane Sonko jaralul len ko. dañu toog pour sen leader nekk président de la République. maintenant xex bi mu dem ba dess des kessé kese. léegi kessé nak mo mën ta xex ak régime Macky Sall. parce que amuñu doole bobu noonu amuñu capacité bobu noonu. d'accord.